Mamy daf ma woo démb moo ma yee ci ay nelaw wax ak man ba ñu tënk ay kàddu kon defaraat dafa woon naa ni wax dootul amati. dañoo waxoon man ak moom Mamy Cobra damay nelaw démb moo ma yee wax ak man ci ay kàddu yu dëgër. ba ma ne ko mami Cobra mu ne ma ma ne ko gis naa sax ñu collage ci kalaw be ne yow lay waxal waaye maa ngi la doon bëgg a wax bu la bu dee génn nga bu ci wax bu ci tontu parce que sénégalais yi ay seytaane lañ man du ma wax waxu naa féq man ku yaakaar ma fay doomu aadama pour mu yàq la nga katt xàcc man du ma fay kenn pour mu yàq doomu aadama man kan laa ragal man dinaa woo doomu aadama naan ko yàqal ma diw xanaa kon man ma am lu ma xanaa déglu leen déglu leen dafa xoolal eh bi laa bëgg mu dàq fii ba ma wax li wax ba pare. danaan maam Ndiaye Savon woo naa ko waaw waaye ma ko woowee wax na ñu ne moom lay def ku tukki moom lay def ku fumiste ak bi noonu lay def mais loolu dalu na ba tax na sa waajee sama photo démb ma woo la jot sa rak sa rak paas ma damaa dem ci moom ñu ngi koy woo jëlu téléphone am ñu dem ba këram fekk ko fa te moom li muy def ak li muy wax bu ko ñemee jarul sangatu jarul làq jarul dara da ngay toog sa kër waa bu ñu ko def ko toog di ko laay fa di ko saaga dootoo pour lan lan laa jote ak moom lan laa ko def mais lu mu wax rek mettre ma en yow ak en ak yow nga toog ko seetaan mais pour lan wala moom la may wax dëgg la ci yow ndax déggoo yi kii di wax xanaa te yow démb la téléphone man Ndiaye nga ne man naa ma ne la sa kii waxal ak moom bu ma ko yóbbuwaatee ci yoon du ko baal nga ne ma tëj ko ba dama caabi ja ma ne la maam ba ma ba tax ma ko nga ne ma sama yónni wu ci ndax man déggante maa moom waxu maa moom def maa moom di ma ne la nee nag yow yaa ko yónni ndax ñu nekk ba Europe ma ne la sama benn xarit. mu nekk ba Europe ne ma mami mu ne ma naan génnoon ci dossier maam li ma la wax démb sax dégg nga ko génnoon ci ay dossier maam ak ay xulo maam ndax maam jàpp ni da ko bëgg. man na ne man nitam laa te man mu bëgg yow looloo tax nag day sàmm saa yu wax amee mu génn wax téléphone kooku ne ma eh nekkal nit wala nga nekk dof ndax waa ji nee na rakkam ak jëkkëram lay dégganteel bu heure bu jotee rakkum. ma ne la waa ji nee na carrément sa rakk ak sam jëkkër lay dégganteel dana ma man sama jëkkër intellectuel la duggul ci ñooñu waxul ci ñooñu di dégluwul ndax sama jëkkër ni ma nekk sax ma ne la man bés boo ko yóbbaatee nga ne ma dëggal ba damu caabi mais koo xam ne yow wax na la loolu ci suba si ci ngoon gi waa ji fa Ndiaye balaa foofu damay tontu foofu ma Mamy Cobra Mamy Cobra yow dama foogoon ni ku intelligent nga mais intelligent woo xam nga lu tax nga ne man sa xarit laa woo nga ma téléphone wax nañ man ak yow nga wax ma li ne ci yow ma wax la li nekk ci man nga génnaat yow di di di def sinap di ko dugal si sinap pour ñu dégg nii yow wax nga ak maam Ndiaye maam Ndiaye lii la la wax mami Cobra man lan laay fañ ci sëñ Bada yow lan nga ma def man ak yow dañoo bokk jëkkër man ak yow dañoo bokk kër man ak yow dañoo bokk fu ñu nekk su ma la soxoree mbaa ma iñaanee la mami Cobra man lan laa lay iñaanee mbaa ma lay soxoree bay jël nit di la taf bett nga ma nag bi nga waxee man démb maa la ne sëñ Bada mu ne ma ah ma ne la ndegam moom moo wax ni man maa ko yónni sama jëkkër moo ko yónni ak sama raq ne ma ah, ma ne ko boo ko yóbbuwaatee pëlis duma ko duma ko plaidel tëj ko ba damm caabi ja man maa la wax loolu man maam Ndiaye Savon maa ne la mami Cobra ba ne la ah nga ne ne sa jëkkër moo ko yónni ak sa raq pour mu may taf di ma saaga nday mane la bu dee sëñ Bada loolu la wax tëj ko ba damm caabi ja te wax du am te duma ci interview maa la wax loolu non man sama jëkkër galaa yi sax xamu ko sama jëkkër du déglu lu ñaaw du wax lu ñaaw bañ na ko ba am sax da koy supprimer ndax nee na xam nga lu tax li mu gis tiktok xamu ko ko Cobra man du ma la yàqee la laa lay yàqal dangaa jaay diw dangaa jaay saabu danga nekk sama nawle jaaykatu diw ba ma lay yàq xanaa man maa gën a am lu ma naqari bi ma soxu di taf man dañ na ma carrément Mamy Cobra moo ne soxu na la taf est-ce que mës naa la ko wax te yaag soxu ay xaritu benn baqan ngeen est-ce que mës naa la ko wax sama diggante ak yow bu ko yàq ci waxu ñàkk fayda yi man su ma doon déglu waxu sénégalais yi bàyyi naa la xam nga lu tax heure bu wax amee ñu ne ma Mamy Cobra dégg nga li mu wax pourtant say vidéo lépp lañ ma envoyé bi nga naan maam Ndiaye diw defal na la lu baax jote nga kii jote nga kii jote nga kii pourtant dañ ma ko envoyé dama ne mami sama xarit la dafa may plaider mais lii dafa ñaaw yow ñëpp a war a génn di wax waaye yow waroo génn ndax démb wax nañu man ak yow ba tënk ay wax ba nga ne ma wool aji nga teral ko parce que li mu wax cuune mënu ko kon maa ngi yow réeroo ñu non kon lu tax tey nga xëy di def ay vidéo di wax naan maam Ndiaye savon Ami Ndiaye kaay taalal ma sa téléphone sëñ Bada dama ko woo dama ko enregistré te xamul ni maa ngi koy enregistré damaa bëgg nga déglu ko su ma paree ba wax ci eh boo génnoon di dëbb réew mi ba mel ni suul ak bëjëg du ma ci waxaat ndax man xam nga la laa jomm diw sama xarit la diw sama nawle la ba pare toogaat di la yàq ñu baree ngi sotti seen bëñ ñi di reetaan ñu baree ngi taxaw nii di reetaan ñu baree ngi waxoon xamoon naa ko waaye jomm naa ko sama diggante ak yow mais li ma def nag metti na ma parce que bu fekkoon ni déggantewuma ak yow sax à mais mën na la ñuy déggantee ba tënku li ñuy tënk nga ne ma sama yaay dem na dikk mi ngi yóbbu sëñ Bada ma ne la dinaa woo sëñ Bada mais damaa pare na man su ma wooyee sëñ Bada lan laa koy wax parce que sëñ Bada sama yoon nekkul ci moom sëñ Bada bi ma waree taf wax ma lu ñaaw daf maa taf wax ma lu ñaaw ba sëñ Bada pëlis laa mujjee ak moom ah man li may liggéey dafa lew de ku yaakaar ma jël li may liggéey lu toll ni fatal ay ni di ko fay nit barke allah ji fàllu mbàkke lu ma am yàlla na tàq ba jeex ku yaakaar ma fay la man pour nga yàqal ma doomu aadama man awma sax boobu temps man maam Ndiaye awma sax boobu temps parce que xam nga lu tax eh kuy xale ci réew mi maa la dàq liggéey maa la dàq am xaalis te kenn ëpp ma ci xaalis xale yi ci réew mi nii liggéey su sew si eh amul benn xale bu ma ci ëpp xaalis kenn benn xale gënu ma cee bañ naa ko buy tax kuy taxaw di tiitaru naan sama oto dama lay tegleel man ay oto tegee ko ne waaye kon bul ma woo lii sama diggante ak yow man nag dama jomm ñëw ba Thiès fekk la fa sa yaay taxaw wax ak man ne ma ku ne ci tiktok bi ma ne ko ah mu ne ma yow yaa ma leen gënal sa yaay yëkkati ay kàddu yu rafet wax ko boobu ba tey loolu laay sàmm ndax dama di gor man ñaari gor moo ma jur ma juddu ñetteel leen. du ma baadoo la du maa ciipi man yoruma la deux visages man bañ na ko ba li nekk ci man moom laay wane chaque jour ci internet bi duma ma wax lu ñaaw duma def lu ñaaw ku am preuve dugalal ku ma mës a woo ne la Mamy Cobra mbaa ma woo la ne la fantôme mbaa ma woo la dugalal sa preuve du yàq doomu aadama du ma fekke fu ñuy yàqee doomu aadama waa yow waa man su ma nee sëñ Bada tafal ma Mamy Cobra man lan laa jotee ak Mamy Cobra maa ngi Mamy Cobra danoo bokk waar gis nga wax bu dofee nopp yi koy dégg war a wér mami war nga jomm li sax sama diggante ak yow munoo génn barki démb wax ci maam Ndiaye Savon tey nga def sinap naa ma eggali ma jël la may ma tuuti rek ma eggali jël la may ma tuuti ma eggali jël la sëñ Bada moo may woo taxaw ne mami Cobra dafa baax dëppaat dem ci sëñ Bada ne ko yàqal ma mami Cobra mami Cobra maa yow dañoo bokk jëkkër dañoo bokk far dañoo bokk li ñuy jaay bu ma la yàqee lan laa lay waxal dama la xamal dara lu ma la xamal bokkuñu sax fréquentation jàmm lañu siq ak salaam te jàmm ji boo ko bëggee day wéy mais bu dee bëggoo jàmm gi rek ñu daqal ko ndax man tubaarkàll li may wax chaque jour abuma jeeg caqam ñaanuma xooñ fréquenté wu ma kenn dewuma dikkuma sama liggéey bee ma ñor soo gisee nag ma jàpp la sa ndey ju baax jee tax ma jàpp la parce que sa yaay dafa am kàddu am yow sa yaay dafa fekk mbooloo mi ñëpp toog ci benn néeg mu ñëw fekk ñëpp toog mu fekk ma ba fi ma toog ak sa maam sa yaay ne ma yow rek laa bëgg wax ma ci àddina wax ma bi muy tabax këram ak li mu daj ci àddina ne ma muñal dugal fi génn ko kooku mënumaa wax ak moom ba pare dëppaat yow muy doomam di la yàq barki dem ba nga wootee kees man maa ñëw te ñëwuma ñëwu naa féq man amul xale bu may yëgal may def dérangement amul xale bu may woo nan ko kaay def drangement pour nga ndawtal ma lu may doyee ay ndawtal ak yooyu man Serigne Fallou teral na ma de te bopp ba tey soo déggee samay wax dama naan la ma Mamy Cobra mu sëriñ fàllu maam Ndiaye mu sëriñ fàllu yaa nga Cees di ko ruq maa ngi Dakar di ko ruq damay teg vocal bi ba pare su ma paree dugal sëñ Bada sëñ Bada lu ko waay di wax ci àddina na nga ko xam day ñëw lu ko di wax ci àddina na nga xam ak ku mu mënti doon di influenceur ci TikTok bi man maam Ndiaye Savon ku ma ci mës a fay xaalis génneel may naa la permettre naa la loolu déglu leen

ne ma maam Ndiaye. sëñ ba Bada dafa am ko mu doon waxtaanal ku nekk Europe ne ko. waaw maam Ndiaye Savon du wax ak man jëkkëram moo ma fay xaalis ak raqam sa deex pour may yàq ma mi Cobra di ko taf. mais ki mu la wax kooku noonu da la ko war a jox wala mu ko léegi ni ma toog di direct nit ñi di ko bind man xam nga jàngu ma. waaw léegi ma toog di direct nit ñi di ko bind léegi ma sama direct dagg. sama benn modérateur woo ma ne ma maam ma ne ko ah mu ne ma ma mami Cobra dafa dugal. ci sinabam di wax nee na sëñ Bada moo ne yow sa jëkkër moom moo ko fay ak sa raq pour ñu yàq pour ñu koy yàq cinq minutes sëñ Bada man dama mës a génne man xaalis woola ba nga ñëw ma ne la damaa bëgg nga yàqal ma doomu aadama gëj nañoo déggante mais xam nga lan laa bëgg damay laayif daal ko léegi mhm. soo mënee demande nga yéeg nga demande parce que toro c'est toro mhm. parce que Mamy Cobra sama nawla la te bëgguma man ak moom yabel dox sama diggante ak moom parce que man awma temps bu ma yàqee doomu aadama te man wax yu sew yi ci réew mi damaa bëgg ñu génne ma ci te boo ma mënee bàyyi di taf sax nga bàyyi ma di taf parce que taf bi may taf moo gën a yokk tax ñu foog ne man dama lay fay xaas te man bu ma naree yàq doomu aadama yàlla na ma yàlla toroxal du ma yàq doomu aadama xëy na yow dangaa gis injustice bi ci réew mi moo tax nga may taf mais man musuma la fay xaalis musul am. am. maa ngi direct dama bëgg léegi nga dugg sama direct maa ngi direct léegi. ok. sëñ Bada duma ma dégganteeg moom sëñ Bada du ko woo parce que aw ma jotam man dama iñaane coppati ci sama temps tuuti dem di ko may doomu aadama baa ma lay may importance kon lu tax kon tey Mamy Cobra bu ma la yàqee lan la may apporteel sëñ Bada taf la di ma saaga lan la may apporteel preuve yi ma génne boo directé génneel preuve ki la woo Europe nga teg vocalam parce que xam nga lu tax xale yi dañoo mën a féewale xale yi dañoo mën a fen xale yi dañoo mën a duul te man Mame Ndiaye ragaluma dara xam nga tax ragaluma dara man amul ku may may xaalis man man lu ma yor maa ko moom man ragaluma kenn. pourtant koro bi nga génnee di direct bi nga nee gaynde du gaaruwaale dañ ko jël envoyé ma kon ne ma yow yaa naan gaynde nga dégg li la mami Cobra ma reetaan noppi te gaynde laa te gaynde laay mos doon xam nga tax wax loolu man gaynde laa fréquenté wu ma benn xale man sama gaynde ci loolu laa ko wër fréquenté wu ma benn xale daw ma ci benn xale ñaanuma benn xale xooñ fréquentation yi ñuy def di demalanteeg dikkale daw ma lii laay bañ man lii laay bañ ay nettalante kaay yaa fi waxoon dugg na fii génn na fii kon yow ñu waxee man ak yow lu ñuy wax ba pare jarul ngay dugg ci ay sinap di wax man duma la yàq su ma la yàqee sama bopp laa yàq lan laa gis ci yow ba war la yàq lan laa gis ci yow yow ba war la yàq après maa ngi jéggalu nag képp koo xam ne da ngay maam Mame Ndiaye parce que lii dama ko bàyyi woon mais li Youssou Ndour waxoon nit boo nee duma ko topp xamal ni fa ngeen jëm a soriwul dañ lay sës ba ci miiru wis bi te mënta xale buy direct di taal li raay di topp say pooj ci man nga ko gisee waxandoowuma ak benn xale bu ma jëlee sama taa wax réew mi day daanu waaye dama ko jomm xamal tama jomm ko ban lan la ma apporteel bi ma dalee wax ba tey ay noon ñi la war a yab yab la yow da ngay gis ñoo xam ne yaa leen gën a rëy juddu gën leen ci ndey gën leen ci baay gën leen ci aadama ak awa ñu taxaw di wax ci yow te loolu xam nga leen moom ma ko tofoon lii may def di taf doomu aadama di wax ci moom di xulloo dama ko dépassé nag j'ai pas le temps le temps passe awma sax boobu temps parce que man sama promo bi maa ngi seet nu ma ko mën a nu ma mën a satisfaire nit ñi kuy xëy di jamba ay bërigo dangaa mën a fréquenter fenn kuy jamba ay bërigo di jaay man soxlawuma bës xam ma lu tax man bës bi xale yi di xëccu yàlla man la ko defal bañ na ko ba réew mi soo bëggee jëfru tuuti da ngay laal maam Ndiaye savon pour xale yi teg la loxo man lan laay doyee bës ma ma mami Cobra fay sëñ Bada lan la may apporteel mami Cobra maam Ndiaye savon bii nga gis lam lay wax moo nekk ci moom yoruma deux visage xale bu la mës a wax woo naa ko di wax ci yow. nee ko Mame Ndiaye lan ak lan la la wax duma woo xale sax ba wax ci yow bi ma wooyee démb wax naa la ko ma ne la mami nga ne ma ah ma ne la lii may wax ci yow as tuut duma ko ñamal benn xale bu dee waxuma la loolu rek génnal nga wax ma ne la lii may ñam ak yow as tuut du ko ñamal benn xale parce que awma temps xale yi man xale bu ma bàyyi dee leen xool li ma leen wax da ngay jëfru parce que su may ànd ak yow dama lay jox sama xol jox la sama xëtër jox la sama lépp foo këpp ma baatare di la dugal foo xam ne kenn du la fa dugal di jël sama alal di ko def ci yow moo tax ku ma bàyyi dangay ngay jéem a noonanteeg man parce que da ngay li tax ma bàyyi la man gaynde laa xam nga la laa xam lu baax lu am personnalité def lu baax ñu fay ma lu bon loolu la ma yàlla moo ñaalee dama koy muñ di ko sante Alaaji Fàllu Mbàkke waaye ba tey taxul ma torox ba tey maa ngi ci kanam kenn du ma gis ba reetaan ndax yàlla xol lay fay te yàlla damay fay sama xol ku ma àndal xol bu rafet laa ànd ak moom maa ngi jéggalu nag yéen ñëpp yéen ñi nekk ci tiktok bi parce que lii dama ko bàyyi woon parce que nekkatul sama foor xam nga lan moo nekk sama foor wane samay produit di yéeg ci avion yi def ko ni taxi di dem chaque minute loolooy sama foor di indi ay bagage xale yi di ko jënd ñiy mer di mer ñiy jooy di jooy mais dama leen ne maam Ndiaye lii ko yàlla def du sëriñ du dara yàlla sunu borom la te kaw la soqe ko dangay mën a accepter bëgg ma munoo accepter nga bàyyi ma sëñ Bada nag dama ko bëggoon dugal sama live mais ñëpp may woo bu ko dugal sa live sëñ Bada man su ma ko mësee may xaalis man maa xool ba bëgg koo may xaalis may ko xaalis sëñ Bada jour bi ma koy mi ko may cinquante mille direct aadamoo laa dugg ma ne aadamoo sëñ Bada moo ñuy daaneel man ak sama jëkkër dañuy ree taay mi sol koppati di toj dëkk bi aadamoo ne ma teral ko may kati fukki junni aadamoo sax moo ma envoyé numéro sëñ Bada ma may sëñ Bada fukki junni garaat yaatal ba mu ñëw seet si ma ma may ko fukki junni sëñ Bada buy wax ci man sax duma woo man duma seetaan direct sëñ Bada xawuma lu may wax damay jékki-jékki saa dugg TikTok rek xool dagg-daggee man awma temps man awuma temps j'ai pas la temps li ma lay lancé nag mooy Mamy Cobra kàddu yi may wax yow laa koy yow laa koy mujjee wax te dootuma justifié wu dara sama entre ak yow sama diggante yow boo ko gëmee xayrun wal jazaaka boo ko gëmul xayrun wal jazaaka bu ñu àndee apporteeloo ma dara su ma àndee ak yow apporteelu la dara yàlla moo ñu boole ak yonent bi ak sa yaay ak Alaaji Fàllu Mbàkke dañ koy mën a téye doxal mënuñu ko ku ne bàyyante duma la tafaat duma waxaat ci wax ji pare naa ci yéen ñi nga xam ni nag yéenay bëggee Mame Ndiaye Savon maa ngi jéggalu bu baax a baax parce que temps bi amatuma ko li nekkatul sama for parce que réew mi xale bu fi fëgg dënnam caqam di yëngu maa la ëpp personnalité man eh lu waay di jënd bu ñu bu nee bu subaa ma jënd ko une minute laa koy jënd duma seen morom je pas le temps pare naa ci wax ji te dootuma ci debaawaat dootuma ci waxaat